asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julli du tedd yi rawatina sunu mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di leen nuyoo fii ci kanamu ak cheikh ma Fati borom daarul moxti di cheikh Mouhamadul Bachir xalifa borom daarul moxti yàlla na fi yàgg lool mbàkke te ànd ak wér. Euh, tey jii yamook ñaari fan ci weeru euh, ramadanul mubarak di weeru koor fii ci daarul moxti ci kër cheikh Mouhamadul Bachir waaye nag ci teewaayu mën naa wax ni mboolem njabootu borom daarul moxti gépp waaye ci teewaayu ki nga xam ni itam moom la dénk kaddoom mu yor kàddoom yor kàddu mboolem njabootu borom darul muxti gépp di Cheikh Mouhamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous mi yor kàddu njabootu borom daaru moxti nu fa yéene maase taataan ci moom ay kàddu yoo xam ni dafa bàyyi koo ci ki fi nekkal boroom daaru moxti mu Cheikh Mahamadoul Bachir yàlla na fi yàgg lool Mbàkke te ànd ak ñu maase déglu Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khoudous mu jottali ñu kàddu yi nga xam ni moo jógee ci Serigne bi jëm ci mboolem ñu nu bokkal Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñu maase teewlu Cheikh Mahamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous. aouzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. yaqulu llahu subhanahu wa taala fi kitaabi al aziz saariu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lil muttaqin alladina yunfiquuna fi lsarai waddaraa walkaasibina alxaysa walaafina an innaas wallahu yuhibbul muxsinin sadaqallahu mawlana alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi ak fu waay mën a nekk maa ngi lay nuyu di nuyu mbooloo yëpp ak mbooloo yuñ mën a doon di leen nuyoo ci turu sëriñ bi sëriñ Basiiru Mbakke Anta Ñaŋ mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Mooti mu sant nu yëkkati kàddu yi jëmale ko ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la yilif te sañ wax ak ñoom te moo di njabootu borom Daaru Mooti mm-hmm. ak fépp foo xam ne féete nañ fa ci kër borom daarul moxti moo xam li boroom borom moo moxti daan wax ne doomi xol wala doomi deret ba tey nag kon nga ne sëti xol wala sëti deret lépp rek ñoom la sëriñ bi sañ waxal te muy wax ak ñoom ak képp koo xam ne ki bëgg na lu baax te bu déggee lu baax ànd ca sëriñ bi aaye boobu mu tàmbalee wax ne yéen de bu ngeen dee jëkkante tey daw di wuti kenn ku bëgg a raw sa morom la ngeen war a njëkk a def mooy kenn ku nekk na jéem a njëkk a am njëggalu boroomam ci lépp loo xam ne wóor na ko ne rëcc na ko ak njëkkante jëm ci àjjana ji nga xam ne dencaluñ ko kenn ku dul ñi nga xam ne ragal yàlla dafa nekk ci ñoom mooy ñi nga xam ne seen alal dañ koy yëkkati moo xam jamono naqari na moo xam jamono neex na waaye dañ koy def ngir yàlla aljanna jooju ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko moom ak ñi nga xam ne suñu amee mer danañ ko wan ba kenn du ko gis ak ñi nga xam ne bu ñu leen tooñee danañ ko jéggale te xam ne njëgal googu mooy li nga xam ne mooy rafet mooy rafet gi gën a rafet ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi moo tax walaaw yóbbul muhsinin la ay bi jeexe loolu mooy sëriñ bi dafa bëgg mboolem koo xam ne kii yaa ngi aju ci borom Daaru Muxti tey déggu ndigalam ndigal li nga xam ne moom la lay jox ndax kat boo gisee mu wax lii ak yëkkati kàddu yi mooy fan yii yëpp mi ngi dégg ak di déglu ay kàddu yoo xam ne mu ngi jëpp dox ci biir liggéeyu Serigne tubaab bi ci yoonu Serigne Touba bi te aju ci diggante kër borom Darou Mouhty ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall mboolem li ci xew lépp nag mu ngi koy dégg waaye nag li nga xam ne moom la ko jàppe woon moom mooy jàpp na ne liggéeyu saytaane la liggéeyu saytaane nag yàgg naa jéem a dugg ci liggéeyu Serigne Touba waaye mosu caa mën a mën dara waxtu bu ci mosaa jéem a dugg rek sunu borom seppil na ko sëriñ bi sànni ci àll ba yàlla may ko ci moom sëriñ bi neen noonu mu ko jàppe woon nga xam ne noonu la ko gisee sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba noonee la ko gisee noonee la ko jàppee jàpp ne saytaane la soo xam ne dafa dugg fu mu xajut te wala fi ñoom la ñuy wax saytaane fañ ko foog ne wala fa war fañ jàpp ne fa la war a dugg du fa dugg fañ ko foogul rek fa lay noonee la ko sëriñ Muntaxa jàppee joxe ndigal nag ndigal loolee sëriñ Muntaxa joxe nga xam ne sëriñ Hamdi Fall mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall wax na ko ñëpp dégg ko wane ne mbooleem ñi nga xam ne dañoo aju ci kër googele kër maam Cheikh Ibrahima Fall mbir yooyu de buñ ko déggati ci kenn ku ca wax wala ca xool wala ñu ca wax nañ ko sànni lépp ci àll ba mm. loole nag moo tax sëriñ bi ne moom itam day yëkkati kàddoom loolee mu foogoon ak la jàppoon ne moo am muy seytaane sol te yàlla seppi ko ba mu sànni ko loolee itam mu sant ci yàlla sunu borom sant borom daaru mooti bi nga xam ne mooy buntam di sunu buntu sant sëriñ Tuubaa bi nga xam ne waxtu woo xamee ne rek saytaane jóg na dugg ci moom rek sunu borom jàppale ko ba loola du du antu na mu ko bëggee moo tax mu sof kàddoom ci sof ci ci kàddu sëriñ Muntaxa yi nga xam ne moom la wax ne eh, nañu nañu murit ndigal nañ ko digal nañ nañ nañ wéyee ndigal loolu ci ñaari wet yëpp nag moo xam fii ci Daarul Muxti la moo xam foofee ca Tuuba ca Maam Cheikh Ibrahima Fall la mm-hmm. waaye ndigal li moom mooy mbir yooyu nañ jàpp ne seytaane su fi duggoon la soo xam ne si yàlla sepp na ko génn ne ko ci liggéeyu Serigne Touba nañ ko sant yàlla loola moom mooy Serigne bi dafa bëgg bu kenn waxati lu jëm ci loolu bu kenn bu bu ko kenn xool bu ko kenn déglu bu kenn gisatu dara lu jëm ci ci wàllu woowu nañu jóg nañu jóg dëgmal ci liggéey bi nga xam ne moo ne ci kanam te ci yaakaar euh, te di ci yaakaar euh, ngërëmul Serigne bi loolu ci la woo mboolem koo xam ne kii sañ na laa jox ndigal war na laa jox ndigal mm. te ndigal nag moom mooy buum gi nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi mm. waxtu wu dogee rek dara desatu fa mm. kon nag nii sëriñ Muntaxa gisee sëriñ bi gisee ko sëriñ am sëriñ am Fall gisee ko kon kenn ku nekk ci nun ñëpp noonu la war a gisee mooy seytaane la soo xam ne jàll na jàll na nañ xool ci leneen te xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa dara mënu koo yàq sëriñ bi nag wax na ne képp koo xam ne kii dégg nga ndigal te jëfe lii mm-hmm. na la leer na li ndigal di jëriñ moom danga ko jariñoo mm-hmm. képp koo xam ne kii jëriñoo jëfe jëfe woo tam nag ñàkk topp ndigal la muy wàññee danga nga ko gis mm-hmm. te jàpp na ne sax nag loola du ci am ndax gëm na ni e, mbirum Serigne Touba ak borom Daarul Moxti defaru na te duut yàqu ba mukk te loolu itam mooy li nga xam ne moo feeñ moo feeñ ci mbir mii te nag dañuy wax ne e, makaarim wal axlaaq buñ ko dee wax dañuy wax ne e, bi ci gën mooy dañuy wax ne ahsanul makaarim yi mm-hmm. xaful muqtadir mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafa mën a fayu ba noppi te fayuwul mm-hmm. kooku ma jikk jik mooy ak lax bi ci gën a rafet mooy boobu maanaam ni ñuy xamee ni ñuy xamee xelum doomu aadama maanaam ak ci ci ay waxam lay génne ni nga xamee ni nga xamee cosaanul doomu aadama ci ay jëfam lay génne mm-hmm. kon nag jëf yi ak wax yi yëpp nañ ko delloo ci am wut ngërëmul sëriñ bi te topp ci ginnaaw sëriñ bi lu mu déglu ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko mm-hmm. lii nag mu doonoon mbir moo xam ne jaaroon na fi te jaaroon na fi rek la ñuy wax te yàlla na jàll ba faw te dara dara bañete fee am loo xam ne luy nurul lool lay doon ci genn kër gu mën a doon ci kër sëriñ Touba yi nag ndax sëriñ Touba moom mooy mooy mooy mooy mooy garab gi tiim ñëpp ñëpp di ci di ci kerlu mooy mm, forage bi jox kër yëpp ndox robinet yëpp di ci xelli mm. loolu mooy foo dem fekk loolaa fa nekk buñ ko delloo maam ci nii ko sëriñ bi defee wane ne moom di jàpp na ne saytaane la sëriñ Muntaxa jàpp na ne saytaane la sayta saytaane soosu noonu la ko sëriñ Muntaxa jàpp na ne ko yëpp jàppe noonu mm. rawatina yaari kër yi xam ne ci la gënoon a fese yaakaar naa loolu ku ko defee noonu da gis njariñ la lii daal moo tax sëriñ bi ne dina yëkkati kàddoom ngir delloosi mbooleem koo xam ne kii mm. eh, am na loo xam ne nekkoon na ci ñagg-ñagg sa xol ci wala ci wel noonu ñu ne loolu lépp na ko nañ ko nañ ko dindi sànni ko ci àll ba te bu kenn waxat dara lu ca jëm mm. eh, wut ci ngërëmul sëriñ bi nun nii dañ ci wut ngërëm ngërëmam moom mi mm. waaye ñu wut ci ngërëmul borom moo Muxti ak sëriñ Touba te loolu itam foo dem moo ko moo moo moo fa nekk moo nekk foofee ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba it loola rek la bëgg kon képp koo xam ne que da ngaa socc woon wala nga xam ne da ngaa fagaru woon jàpp ne moom euh, mbir mi sotti na mm-hmm. loolu de say nag nga toogaat te xam ne moom mbirum sëñ Tuubaa moom mm-hmm. du du yàqu mukk mm-hmm. te du tilim te waxuma waxuma laa nag diggante yaari kër yi nga xam ne kenn ku ci ne jeexital nga ci sëriñ bi jeexital goo xam ne kenn nattablu ko yàq te ñoom dund nañ ko xam nañ ko boo fàttali ko màggalu daaru gi jàll rek euh, maanaam délégation bi jógee ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall te ñun ñu bare bari ci gis nañ leen xam nañ leen ak coloré yañ fa am yaakaar naa ne loolu mandargal kàdduy sëriñ bi lañ joxe ak liggéey borom daaru buñ fi mos buñ fi mos sa taxawal bu ne mm. ci jumaa ji ci liggéey suñ seexati bi ba ci ba léegi kenn ku ci ne seen seen lo seen loxo ngi ci mm. xam nañu lu ñu seq xam nañu lu ñu doon la ca des nag mu doonoon loo xam ne lii euh, luñ doon luñ doon luñ doon méttiitu la mm. te yàlla dogal ñi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam nun ñi moo sëriñ bi moo nekk suñu kanam sëriñ mu taxa nekk ci kanam yoonu murit wépp ñu gis na nii la woon te lii dañ na alhamdulilah rek lañ ci mën a teg mm-hmm. kon daal ñi ngi sant bu baax a baax te fas yéene jëfe ndigal sëriñ bi képp koo xam ne kii dégg nga ndigal te jëfe ko lu lu dégg ndigal di jëriñ da nga ko da nga ko da nga ko da nga ko jëriñoo mm-hmm. koo xam ne kii itam nag yàlla nattoon na la nga xam ne maanaam déggoo ndigal yaakaar naa ne loola itam loolu lay daal yaa koy xamal sa bopp mm-hmm. loolu yéene wuñ ko kenn ñaana luñ ko kenn yàlla ñu ci yàlla musal dund daal na doon dund goo xam ne dund ndigal lay doon ci biir ak ci bitti fas yéene am ngërëmam moom mi di borom daaru mooti di sëriñ Basiru Anta Ñang ngërëmul borom daaru mooti bi ne moo moo moom la Serigne Touba joxoon ndigal mu sanc barab bi mm. jiite njaboot gi dëkk tudde ko Daarul Mooti gas teen bi basirukum ay su kuntum joojee waxoon mbégte rek moo fiy nekk mm. te loola itam nag ñu ànd kook Serigne Mountakha mi nga xam ne moom itam mm. dañ koy ñaanal yàlla sunu borom nii nga xam ne nii la jiitee lépp lu mu yëg ci yoon loo xam ne lii lu mu war a taxawee la mu taxawee ko ci loo xam ne du ca xaar kenn wala du ca déglu dana lu dul liggéeyal Serigne Touba moom itam yàlla may ko kattan ak wér ba nga xam ne moo ko war a taxaw wu a xam ne mooy Serigne Amdi Fall li nga xam ne noonu la doxale moo tuk njabootam te loolu itam mu nekk loo xam ne moo yell diggante borom Daaru Muxti ak maam Cheikh Ibrahima Fall mm. moo yell diggante Serigne Touba ak mbooleem mm. kàngam yi nga xam ne Euh, tegoon na leen ci wetam te loola mooy li nga xam ne itam moom lañ war a xool moom lañ war a jàpp ndax li ñu jàngal ci alxuraan ci yonente yi lan farriqu bayna aadin min rusuli yi loola mooy la loolu moo war suñu digganteeg jàmbaari Serigne Touba yi nga xam ne moo leen defaroon teg leen ci wetam noonu lañ leen war a jàppe ñoom ñëpp noonu lañ ni war a jàppe borom daaru mooti noonu lañ war a jàppe itam ñi nga xam ne ñooy waa kër Mamour Anta Sali yëpp mm. ak Cheikh borom euh, Serigne Touba yëpp noonu leen leen war a jàppe laa nu farriqu bayna aadin min rusuli yi loola lañ ko war a gëmee noonu lañ ko war a jàppe te sëriñ bi loolu la ñuy digal ci loolu la nekk te noonu la bëgg nuñ ko doxee kon nag jàmm nee na bàyyi jàmm jooju ne bàyyi nag nañ ko wéel ci sunu diggante ñun ñëpp ci sunu biir ci biir diggante kër yu mag yi ci diggante biir yoon wi diggante tarixa yi ci biir ci lislaam bi yëpp mm. ñu defee ko noonu ndax buñ ko defee de lépp loo xam ne lii luy luy luy njariñ la danañ ko gis waaye itam nag buñ ko buñ ko sàgganee itam yàlla dina nattu yàlla bu nu ko yàlla nattoo mukk nag ñu ñaan yàlla sunu borom mooy nu fekk ko déwén yu bare bari di ñaan sëriñ bi sunu borom wéral cër yi te yàggal la ñi nga xam ne itam ñoom nga ko àndal li nga wax ci sëriñ Muntaxa nga xam ne yéen ko bokk gis-gis ba tax ngeen waxee ko nii moom itam sunu borom may ko ko te may ko mboolem ki ñi nga xam ne ay ay ay kilifay diine lañu ci ci biir réew mi yëpp te yàlla def jàmm ci biir réew mi te def jàmm ci adduna bi yëpp def ko ci réewi jullit yëpp di ñaanal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waxe sëriñ Bassirou jooju maa ko ko wax la mu waxe ko nañ ñu ko war a waxe wax ju rafet joo xam ne ji mu ne seet teg benn baat baat bi ci teg daal noonu baatub sant sëriñ Muntaxa tudd sant di sant nag njabootu ci Ibra Fall yëpp te xam ne noonu benn lanu benn bopp mu ne su ko xaaj ñaar loolu nag lan baat rek lan ci wax hmm. ndax li ma ta wax hmm. warees ko wax hmm. sëñ Bassirou Abdou Khoudous wax na waxal la naa ko mu wax ko ko mu wax ko noonu ko war a waxe asalaamaaleykum wa rahmatullahi